NRSA doy na sëkk NRSA doy na sëkk. NRSA doy sëkk. leen di nuyu di leen ziara di leen jaajëfal ci seen teewaay euh, mu mel ni wax dëgg yàlla li ñu naqari moo leen naqari moo waral jataay bi te leen naqari wuñu lu dul ni li ñuy dund suñu diggante ak NRSA. Euh, li ñuy dund suñu diggante ak NRSA nag bu ñu leen ko bëggee expliquer ci tënk. mooy bi ñu fi ñëwee contrat bi ñu liyee la woon ak ñoom bi ñu dawalee ci première bi rek dañu commencé euh, warnu ci parce que ci départ départ bi dañu amoon ñetti niveau dañu amoon première deux trois mais niveau premier bi dañu waxoon ak bu deux bu trois bi yëpp da ngeen di gratuite lañ koy def ci commencement bi loolu la ñu waxoon bañ am benn commission boo xamante ne moo nekkoon suñu diggante ak ñoom Euh, lépp loo xamante ne waxtaan nañ ko dañ koy tënk bind ko jox leen bu ñu demee benn moment itam buñ ci bëggee tontu dañuy bindaat jox leen mais liñ ñu jëkk a wax mooy première bi soixante mille ngeen di fay ku man takkal ku mënul bàyyi niveau deux bi ñu ni quarante mille ngay fay niveau trois bi ñu ni vingt mille franc ngay fay waaw mu ñetti ni yooyu benn bi soixante mille lay fay bi ci des quarante mille lay fay bi ci des di fay vingt mille francs ba commission bi am na ci ñu commencé woon taxaw parce que gis nañ ni dès le début ñoom commencé nañ ñu bi ñuy dem itam wàllu courant bi li ñuy war a jox ci courant mënul doy buñ la jaayee un mois vingt huit jours lañ lay jox ci biir vingt huit jours yooyu boo moytuwul dix jours nga ciy taal. Euh, pour nga am ci li ngay taal lépp sax mën nga ko taal ci deux jours parce que plus de deux heures de temps daanaka lan la ci jox kon mën nga koo taal ci deux jours ñu indiwaat benn supplément ne il faut que ñu am benn carte boo xam da nga koy jënd mille francs pour mu mën a continuer mooy mooy ñaareel woor ñu jaar fi ñu war a jaar ak ñoom bind nañ leen mais kenn tontu wuñu bind nañ sous-préfet bind nañu monsieur le maire mais tontu wuñu ñu may leen pendant un an bindaat leen mais tontu wuñ ñu ne ah kon nag dëkk bi war na nañoo taxaw seetlu taxaw seetlu bi mooy ñii kat wax dëgg yàlla ni ñuy jaay seer na te baaxul ndax bu seeroon ba pare di mat nga ala regal mais dafa baaxul ba pare dafa seer ndax ñun amuñu courant dañuy dañuy dañuy tudde ñu am courant mais ñun daanaka amuñu courant ndax weer bi bu fekkente ne li nga ciy am ci courant mën nga koo consommer ci deux jours wala trois te yaa ngi fay prix lépp un mois boo xam da nga koy fay jiital ñu ni kon nañ taxaw seetlu bi ñu taxawee seetlu nag ci lañ nañ def benn point de presse parce que itam comme xam nañ société la bëgguñu ko yàqal lu toll ni tarfatalaan yi ne kon nañ def benn point de presse def benn point de presse bi bi ñu defee point de presse bi may leen presque lu ma deux mois trois mois diglu leen mais kenn tontuwul ñu ne ah léegi nañu nañu waxtaan waa dëkk bi nag ñu taxaw booy boycotté bañ a jëndati courant bi mais comme ñoom délégué bi dafa am ay compteur yu ñu indi loon compteur yooyu baaxul ba mooy compteur yi nekk ci mbedd mi compteur yooyu baaxul ba am na yeneen compteur yu ñu fi indi am na ci ñoo xam ne dañ leen directal fil gi mu jugee ci poto bi dem ci seen kër gi direct kon dañuy am problème parce que bu ñu bëggee couper courant bi bañ a jënd itam ñoom courant bi day ne di dox moo tax bu boo kupe yow boo ne du ma jënd sa waa dañuy wàcc ñoom taal ñu ni nag comme taxaw nañu taxawaat nag seetlu comme ñun bu ñu bàyyee courant bi courant bi mi ngi continuer dugg ci suñu kër yi ca li ëpp ci dëkk bi bàyyi nañu mais des na ñoom ñu ngi commencé di porte à porte ci biir dëkk bi di wax ni kaay leen ñu may leen courant bi kaay leen ñu may leen courant bi koo daan jaay muy su kii nga naan ko kaay ma may la parce que dañu am ay information ci ni courant solaire bi suñu su taxawee batterie yi day day am problème day exploser moo tax bi dëkk bi commencé bàyyi courant bi ba nga xamante ne ay ñaar ñett ñoo ci des ñoom dañu mujj di dugg ci biir kër yi di wax ni kaay leen ñu may leen sunu njaboot yi commencé di taal kon suñu xeex ñun du mën lijjantiku ci lañ ni nag mu ma ànd taxawu Ndombili ci la wax ni képp koo xamante ne amoon nga abonnement ci sa biir kër nañu ànd ñëw ànd ak euh, euh, chef de village taxaw démonter fil bi pas ñu koy dagg. ñu démonter fil bi laxas ko ci poto bi ba courant bi moom mën a jóge ci suñu kër yi parce que am na ñu bëgg jënd ay panneaux solaires bëgg ko monter ci seen biir kër yi mais courant bi mi ngi fi ca mënu ànd ca yooyu ñu ñu monteel ci suñu biir kër yi installé ko ñu ngi ci doon fay weer bu nekk 200 francs euh, amul limitation parce que depuis ba léegi ñu ngi koy fay dañ ko continué woon di ko fay ca topp nañ leen maintes fois mais réglé leen lii ñu xam fu muy yem parce que nit ki boo ko nee 200 francs laa lay ci weer bu nekk ah ci installation ci sa biir kër war ngaa am fu mu yem limitation ñu arrêté ko demandé nañu ko maintes fois arrêté wuñu ko ñu ne nañ laxas fil bi bu ko defee nag ku am sa panneau solaire dem installé ko ñu démonté fil bi ci disanteur bi laxas ko bàyyi leen ko seen poto ñun yàlla dimbali nañu ba xale yu ñu yor xale yu ñu yar lañu amul benn xale boo xamante ne mus naa dem fee poste ba nekkoon yàq fa lu toll ni tarfatal ay ne amul benn poto boo xamante ne benn xale mus na koo jege wala ñu laalal leen dara kon ñun yàqaluñ leen dara ci lañ toog benn moment ñu am problème ak benn enseignant bu fi nekkoon ak benn doom Ndombil boo xamante ni moom bi ñu ne dañuy démonter fil yooyu ñoom ñaar dañu waxoon ni ñoom du ñu démonter fil yi. bi ñu demee ba ñoom ñaar sël ñoo des ci dëkk bi ñu wut ay sanction yoo xamante ni dañ ko sanctionné ci biir dëkk bi ci li ñu moomal suñu bopp. li ñu bokkal suñu bopp boo deful lii doo ñu ñu sanctionné la ci lañ ko sanctionné. bi ñu leen sanctionné kenn ki ñëwaat na ni taalal leen ma enseignant bi rek la leen situation parce que daf ñu porte plainte woon ñu dem jogo bi ñu demee jogo ci kanamu commandant bi ñu toog waxtaan ak ñoom ñu trouvé solution daañu ko jëndal euh, panneau solaire sama mbokk mi moo ko jëndal panneau solaire montel ko ko Mouhamed Diop kon situation bi jeex na depuis boobaak léegi parce que mën na un an fan yii la ñu gis ñu indil ñu ay convocation ñun taalutuñu courant bi yàgg na lu mat un an ngi nii kenn taalu fi ndombil courant bi tàkkatul un an ndombil courant bi tàkkatul laaj leen ku leen neex kon ñu toog ba heure yi yaakaaroon ne dañ jël seeni bagage ñu envoyé fi ay nit waxtaan ak ñun ni nu ah dañoo bëggoon kët ñu waxtaan ndax porte plainte woon nañu waaye njuumte la dañoo bëggoon ñu waxtaan mbir ñu teg ko fi suuf en tant que villageois ak seen bëgg jàmm fekk fi mag ñi ñu toog waxtaan bi ñu waxtaanee ci leen leen ni ay fan yu néew den ñëw jël si suñuy bagage chef de village a ngi nii ci kanamam la njaboot gaa ngi nii ñoo fi ñëwal seen bopp wax loolu ndeke ci biir loolu ñoom dañoo ñëw pour wut ay information ci dëkk bi wala wut yeneen problème yoo xamante ne dañu koy cole motif pour wane ni dañ leen a yàqal moo leen tax woon a jóg parce que bi fi jógee ñu informé commandant bi commandant bi dafa wax ni c'est foo loolu du dëgg parce que bu ñu ko doon def duñ ko defee noonu kàddu googu chef de village bi moo ko wax moo ne commandant dafa ni du dëgg bu ñu ko doon defee noonu dañuy ñëw fii ñu signé leen ñu ànd ak ñoom ñëw mais ay mag lañ fi fekk parce que xale yi ñi ci ëpp dañuy voyager dañuy génn di liggéey bi ñu defee loolu ci leen ñu ñëwaat indilaat nu convocation jël ndonga ñu ànd ñun waa dëkk bi yëpp muy deuxième mobilisation boo xam mobilisé nañ ko dem jogo bi ñu demee ñu rocc ndongo yóbbu ko xamuñu lu nekk ci PV ñu ngi ñuy informé ni dañu gonfale PV bi dañoo yàqal waa ENARSA ci ñun amuñu lenn lu ñu yàqal ENARSA compteur yooyu ma doon wax mi ngi woon ci mbedd mi doxatul woon ñi nga xamante ni ñoo fi représenté ENARSA ci dëkk ci dëkk bi doon jaay courant bi ñoom xam nañ ni doxatul boo leen laajee ñoom ñu xam ni doxul ñu indiwaat yeneen compteur indi trois compteur di ko compteur yooyu mi ngi fi ci biir dëkk bi compteur yooyu boo ci demee kenn laalu ci dara dara dara laaluñ ci dara cest à diir kon dañu gis ne dañuy jaay doole di ñu ñu fekk ci suñu dëgg di ñu di ñu jaay jaay doole. loolu nag mooy situation bi kon yéen ñii ñu am ci commune bi ngeen ñëw comme yéen ñi am ci commune bi ngeen ànd ñëw taxaw di bañ loolu vraiment ñu ngi leen di sant bu baax ci seen teewaay gis nañ seen teewaay ñu ngi koy rafet lu baax et puis ñun problème bi di koy di am est-ce que am nga benn cahier de charge wala lu ngeen planifié pour fas yéene ko poser comme ay actions. waaw xam nga ñun li ñu déparé rek ci loolu la ñu continuer parce que xam nañ ni yoon am na te wóolu nañu yoon ci itam même bu ñu euh, bëlëf bëlëfee Euh, di ñu jaay doole di ñu forcer itam jàpp nañ ci kaw yoon ñoom dinañ diglu nit ñi te dinañ diglu médias yi te dinañ diglu rapport yi nga xamante ni ñun def nañ ko envoyé leen ko ñu xool ñu xam ni ci rapport bii mooy dëgg parce que loo xam ne boo ko vérifié fekk ko fa mu nekk dëgg parce que euh, yow mii fi ñëw tey boo ñëwee ñu ànd dem ci poste bi nga xool ko di nga xam ni fii benn xale mosu faa dugg kenn laalu fa dara te bu fekkee xale yi dañuy yàqu bi ñu meree ñu jël ndongo yóbbu ko mën nañoo ñëw yàq benn poto doo gis benn poto bu ñu yàq fiil ku ko démonté laxas ko yóbbu ko ba ci kaw nga laxas ko fa takk ko kooku niroo yàq sunu ñàkk a yàq googu wala suñu ñàkk tooñ googu duñ ci jug mais nag comme dëkk bi dafa am yoon dina am yoon mais nag kilifa buy wax ci ci responsabilité kilifa am lay waxee mais njaboot gi ci ginnaawam mën nañu ànd ak mer yoo xamante ne ak calme bi ñu leen calmer pour ñu yàq tout le temps ñu ngi leen di calmer pour ñu yàq mën nañ dem ba ba njaboot yooyu rëcc ñu indi dagaa yoo xamante ne ñoom ñi seetaan ba loolu am ñoom ñooy la responsable. parce que problème su amee ci dëkk ñi ñi nekk ci village bi di ko tenir di ko protéger njaboot gi di leen di fipp pour rëcc leen ñu di ko protéger ba mu egsi fii yow kilifa yi nga yëg ko da war a taxaw pour saafara mbir moomu. soo saafarawul bañ bëtt nag ah bu boobaa nag nañ ñu xam ne ñun yàgg nañoo toog di muñ parce que colonie bind na lettre toog un an bindaat lettre toog un an def point de presse def toog un ñu coupé courant bi mu defaat un an kooku yaakaar naa kooku yàgg na. Ndombil situation bi ji ëpp na juróomi at ci ginnaaw wala juróom-benn at ci ginnaaw ki njëkk a nekk ci courant bi dafa dem ba am problème ak waa bi xam ne liñ ko li ko NSA waxoon dara nekku ci dëgg defuñu dara ci li ñu li ñu waxante ak ñoom mu dégager responsabilité am démissionné. keneen ki ñu ko jox mu ko yore tey jii nii moom dafa taxaw moom itam démissionné pour l'instant benn membre bu yor ENARSA ci ndóol bi nekk fi kon loolu mooy wane ni bu baaxoon ñin fi teg ñu pour ñu liggéey mais ñu ñu ko ne di jaay parce que dafa baaxul bu baaxul ki nga jox ni ko jaayal ma mu dem ba xam ne amul lum la jaayal baaxul mais day bàyyi kon ñun situation bi foofu la toll c'est-à-dire ay ay kilifa la ñu mouvement lañu am bu taxaw boo xamante ni wax dëgg yàlla seeraanuñu xale yi pour ñu yàq mais. gërëm di leen sant parce que olof ñun dañ daan def bu ñuy dem formation dañuy jékki-jékki rek jël benn bant sànni ñu daa leen bant bi demal for benn nit mooy ñëw for ko ñu dem indi say benn nit bi bu ko yëkkatee du ci mën dara. il faut mbooloo ñëw ku ne jàpp walaay seede yàlla ku ne jàpp mën a yëkkati bant gis nga Sénégal dafa am fu ñu toll foo xam ni ñun avant ñuy nekk sax député dañoo nekk ay nit ñoo xam dañ nekk si terrain bi gis nga ñun député nekk nañ député nekk nañ ci parti politique nekk nañu ñun jigéen ñi nekk nañu ci li nga xam mooy groupement yi man mii présidente comité consultatif de la femme la bu Mboro dox lu ne dox nañ ko da ngay biir kër yi sax day am problème ñu dem di ko régler kon yaakaar naa ni yéen ñii li ma dégg fii ngeen wax ko lu am solo la moo di ni yéen da ngeen am ful am fayda nit ki ñëw ni la kaay ma jaay la courant courant ba doo si taal sax deux heures temps courant ba ni piw ngeen am ful la gu toll ni daggu ko li si des na xam nga lan la comme dafa guddi mooy ñun député lañ li ñu yëkkati man ak Massata mi ñun lañ teg si département bi boo gisee biñ ma waxee problème bi ma jóg parce que département lañ ma fale liste nationale dafa am liste départementale am man ak Massata mii ñun ñoo nekk département te bëgguñu am na ñoo xam ne la leen daloon bëgguñu mu dalaat ñu maanaam nit ki soo déggee sa dëkkandoo nekk ci jafe-jafe nekk ci problème da nga war a jok dem ni ko massa ba pare nga xool problème bi lan la la nga ca mën nga def ko parce que lañ ca mën pour le moment mooy bu ñu demee ba assemblée nationale balaa boobu yàlla na problème bi réglé balaa boobu man am naa ay xame dinaa si waxtaan ak ñoom si suuf dégg nga expliquer ko expliquer leen problème bi gis nga Sénégal gii dañ lay ëpp doole rek liñ naan kumba am day kumba amul ndey moo fi ne dañu lay xool rek xaw la xeeb defe da nga néew doole ñu ñëw dal sa kaw mais boo leen nee nii def dank def say léegi ñu bàyyi seen doom ji mu ñëwaat ci këram kenn moomuñu Sénégal kenn moomuñu kenn moomuñu kenn ku si ne dafa am foo taxaw dafa am foo féete dafa am looy def yéen am leen mat gu toll say boobu bu leen ko bàyyi bu leen xool ni diw parti bi la bokk parti bi gis nga tey bu seen doom yéegoon fii ci kaw yëgu leen ko mu jékki-jékki ngeen seen ko muy daanu doo leen ni kii de doomu euh, ki bokk si Ablaye Wade la nañ ko bàyyi mu daanu yéen ñëpp ay daw c'est la même chose yéen ñëpp a war a daw jàpp ci lii ñëpp jàpp ci waa département de Tivaouane bi ñii ñoom ay dara ak ñeneen ñii nga xamante ni ñoom ñëpp dañoo dégg wax ji jóg ñoom ñëpp ñu jàpp ci lu luñ ci mën fu ñu mën ñu féete dañ naan député lu tabax tali du tabax kër waaye lii du tabax école waaye lii tey problème am mu ñëw déglu ko xam ni mu demee mu porté ji ko assemblée nationale. même yéen bu doon faju na ci diggante bi ñun man ak kii mi Masata ak ak Assane bu ñu demee assemblée dinañu wax problème bu mel nii pour bu ëllëgee ñu bañ ko defaat parce que affaire dañuy làmbaatu rek dañuy ñëw laal la tey di xool ba xam yow nan ngay réagir. bu fekkente ni yëfee na mu war a mel melu ko wala ña la war a jàppale jàppale wuñ la ba nga génn ci bu subaa ñu dem feneen Sénégal noonu lay doxee kumba am ndey kumba amul ndey toujours ngeen dégg ko yow nit ku deful dara jël fii wekk luñ ci yóbbu kaso loolu dafa jar yobu kaso jar te yóbbu kaso waaye nag lépp dina jeex kon ñu ngi leen di ñaanal gis na dégg nañu wax ji yëpp dafay gudd moo tax mu ñu si dellu di wax xam nañu ni seen histoire bi demee ci commencement ba fin heureusement topp nga man de sama xalaat lenn rek laa leen di wax dañ leen porter plainte yéen a def leen compte beleen plainte yóbbu ko ci tax taabalu procureur dégg nga wax leen li leen def yëpp ngeen yóbbu ko ci taabal procureur procureur bu boobaa buy atte na xam lu muy atte parce que nit ki doo ko tooñ ba pare ëpp ko doole di ko tëj waay loolu mënul nekk waaw nañ waxante dëgg kon maa ngi leen di gërëm bëgguma wax ji gudd moo tax nde kon guddi na nde kon dinaa gën a wax waaye maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen ñaanal ngeen am courage ngeen dëgër bañ a ragal dara ñun ñu ngi fi lu leen jaaxal boo leen ñu waxee boo leen ko waxee ñii ñun dinañ ko yëg luñ ci war def nañ ko def li ma leen wax la rek taxawaay rek. nuyu ilimaan bi nuyu kilifa diine yëpp ak ñi nga xam ni ñëpp vraiment euh, ñoom lañ fekk fii ak ñu àndal ci département bi yëpp mu di le secrétaire général Gorgui Dia docteur Saliou Mbaye vraiment honorable député Fatou Gaye Abdou Aziz Aydara ak yeneen ñi ñëpp nga xam ni vraiment ci département bi ngeen nekk lii biñ ko déggee xaasim mii moom a envoyé vidéo bi ma liir ko mais man lu mu ci doon lu nekk damay dem xooli source bi ba pare tànk tegu moon fii sama tànk yéen ñi dëkk Ndombin ngeen wax ma dégg am na ci loo xam ne du ci jël samay responsabilité mais bi mu amee Abdou Aziz Aydara woo ma wax ma wax ma ko ma ni ko ah, loolu de dégg naa ko mais doy na waar lu doy waar la mu ni ma nag nañ jéem a fexe nuñ fa demee ci laa contacter honorable Fatou Gaye contacter honorable Assane Diop moom dafa am empêchement moo tax ñëwul ni leen nan jàpp jour dem fa installé gun ñu mais am na jafe-jafe yoo xam ne wala situation yoo xam ne su amee urgence la da nga war a ñëw ñun tey jii élire nañ mënoon nañ ni don dañuy toog parce que li ñuy am am nañ ko ba pare mais loolu war sa askan la ñun bi ñu soxlaa dañu dem fu nekk ñëw wax ak yéen ni leen ñi nga xam ne ñooy leader yi daan jiite sunu sunu sunu gox-goxaat yi nit ñu daan jiitee jaaduwul teguwul ci yoon jël leen loolu teg ko ci suñuy loxo ñu jéem leen a teg ci yoon loolu mooy sunu tànk yi parce que député buñ ko falee dafa war dem di saytu soxlay askan wi dem déglu leen parce que buñ la joxe oto jox la carburant ñun bi ñuy ñëw suñuy moyen bopp lañ demee mais kun jox oto jox la carburant waxuñu la ngay dem assemblée di ñëw di tëdd sa kër mais pour ngay dem ci askan wi fépp foo xam ni tey problème am na fa comme problème bu mel nii nga ñëw fi teg sa tànk déglu leen ñu wax la nga wax delloo leen bu jaree yóbbu assemblée nationale nga yóbbu ko fa te problème bii ñaan nañ yàlla nag mu saafarawu mais bu saafarawul dinañ ko dégg bu soobee yàlla Sénégal nag li fi am léegi bu njëkk tubaab bi ñooñu daan noot mais léegi sénégalais ni senegale mooy dem jàngi am xamxam xam bu mën a naxe wala bu mën a noote sénégalais comme moom ñëw di ko noot loolu lañ fi gis parce que lii tubaab teguñu ko kenn teguñu ko mais ay sénégalais ñooñu ko teg mu mu di injustice boo xam ni vraiment dañ ko fi war a jëlee fii nag dama koy wax à chaque fois dañuy wax yenn ñenn ñi ay Guy mari Sagna jàmbaar la ay Barthélemy Dias jàmbaar la ay ñeneen ak ñeneen mais gis ngeen Tivaouane gii am na ay Guy mari Sagna ak ay Barthélemy Dias te di ngeen ci xam dara incha allah ndax ñun kii wax na ko léegi lenn feesu sunu bët gis nga député bi ci sunu loxo lan ko teg fii lan ko teg mais nag lépp lu ci war ci responsabilité dañ koy assumer ba mu mat sek parce que lii am fii jaaduwul parce que ñoo xam ni vraiment da nga ñëw jaay leen courant ñu ngeen dem ba ci biir contrat bi li leen lié lépp yéen ngeen bafuwe ko ñoom ngeen bind leen jox leen tontuwunu leen ngeen defaat ko tontuwunu leen mais ci yar ak teggin ngeen defee lii parce que lii bu fekonte ni kuy yàq la day buddi courant bàyyi ko fii ci suuf muy traîner mais da ngeen ko démonter ay professionnel ñoo ko démonter parce que dem ngeen ba mënatu leen a dem ngeen ba mënatu leen a tenir situation bi ngeen démonter ko ci ni mu gën a jekke lemal leen ko ba mu jekk mu ngi nee ci poto ñu ñu lonkal leen ko. lii foog naa ni lii foog naa ni kuy tooñ doo ko def kuy yàq doo ko def ku bëgg coowit doo ko def kon foofu waruñu leen cee mën a coller benn motif. dafa fekk nag dañ leen a ëpp doole moo tax ñu jaay leen ko waaye nag ñun ñi ngeen xam ni tey da ngeen ñu désigner comme ay député député du peuple nag parce que département moo ñu fal mais askan wi yëpp lañ fi nekkal mais lii nii dafa nekk loo xam ne lu war a dakk la te dinañ ko bis bu yàlla defee jàmm ñu demit dinañ ko fa jooy ban xam ni jooy nañ ko fa parce que di lekk siam mu ami xeer nga dem ba ci biir ni man parfumé laa bëgg a jënd borom bitig waru laa wax ni la doog fi jënde par siam nga war a lekk loolu injustice la parce que am ngeen droit buñ leen joxul courant bu baaxul joxuñu leen courant bu doy contrat bi ñu leen lié ñoom li ci war lépp defuñu ko mais am ngeen sañ-sañu rompre contrat bi loolu ku ne am na sañ-sañ waaye force dang nga koy consommer consommer tunu nga jël samay doom denc loolu teguwul fenn loolu nag dina fi jeex te bu ngeen yéen war ngeen xam ni loolu dina fi jeex parce que réew mi ku ne xam na ni mu ngi commencé di am ay changement ñoom am bari na ay maire yu amoon foqati nañ ko seeni loxo bari na ay chaise député yu amoon assemblée nationale foqati nañ ko seeni loxo kon loolu buñ leen ne lii dina deñ war ngeen xam dina deñ te ñun incha allahu rabbi dina taxaw taxawaay bu mat sëkk fépp foo xam ni war nañ ko faa mën a yeggee waa Ndombin amaat seen seen seen indépendance mën a ni lii leen bëgg moom la ñuy wut ñu delloo leen ko ba mat sëkk kàddu yi du gudd waaye am na loo xam ne il faut ñu def ko programme bi tey sax dafa bari parce que am na fu ñu war a dem Kër Saala Kër Saala ci benn parrainage war nañ dem benn final mais lii loo gis dina am na urgence hôpital bee sax boo fa demee am na nooy feebare dañ naan la toogal xaar parce que ñii ñoo la gën a garaawle ka kon c'est normal que ñu ñëw fii liñ ci doon waxante yëpp nag pour bëgg lu rafet rek moo tax mais kaddu yi mat na vraiment ñi wax ñëpp li nu wax man soxla soxlawul woon sax may wax waaye su ma ñëwee ba fii nag en tant que député dinaa wax li nga xam ni aussi tamit mooy lii di injustice ñu teg ko waa ndombi